أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokku jullit yi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm ñëwaat nañ ci seen tafsir bi ñu di amal fii ci télé bu am solo bi di Muslih TV Eh, di am kontante ak mbégte ci eh, àndaat ak yéen ci tafsirul quran bi tey incha allah ñu tàmbalee saar bi ñuy wax suuratul fatiha suuratul fatiha juróom ñaari aaya la suuratul fatiha bari na ay tur yin ko tuddee waaye suuratul fatiha eh, tur yi la bari bari bari ñetti tur yi mooy tuuram turam yin ko gën a xamee mooy fatihatul kitab wala ummul quran wala asabul mathani euh, lu tax ñu tuddee ko fatihatul kitab mooy parce que moo tijji li nga xam ne mooy alquran ñu tuddee ko fatihatul kitab lu tax ndax moom mooy aslu qur'an mooy cosaani alqur'an alqur'an yépp ci moom la bawo moo tax ñu tuddee ko ummul qur'an wala ummul kitab lu tax ñu tuddee ko asabul mathani asabul mathani ndaxte euh, moom mooy aaya saar bi nga xam ne juróom-ñaari aaya la am juróom-ñaari yi aaya la am moom suuratul fatiha moo tax ñu tuddee ko asabul mathani suuratul fatiha bari na ay njariñ lool lool lool ba bi ci gën a siiw rekk mooy suuratul fatiha shifaau la day faj day saafara jàngoro yu bare bare bare bare rawatina jàngoroy xol yi suuratul fatiha saxaaba yi génn nañ am benn buur boo xam ne jaan moo ko mat waaye saxaaba bi ba demee di ko mocc kese la tari ba mu ñëwee bi alayhi salaatu wasalaam li ko wax mooy kan moo la wax ne faatixa dafay faj gis nga kon day wane ni faatixa saar la woo xam ne day faj suuratul faatixa képp ku julli te tari woo ko amuloo julli ndax yonente bi nee na alayhi salaatu wasalaam laa salaata liman lam yaqra bi ummul Uh, kitaab aw bi fatihatil kitaab uh, ku julli te tariwoo fatiha amuloo li nga xamante ni mooy julli borom subhaanahu wa tijjee saar wi ci benn tur wu mag ci turam yi muy allah nga xam ne tur la woo xamante ni kenn mënu wutal ndend ci tur waaye kenn du ko tudd ginnaaw moom ba mu tuddee ba pare ndax boroom subhaanahu wataala moom rekk moo jagoo baatu allah baatu allah mooy baat boo xam ne saa yoo koy jëfandikoo da ngay yëg ni ki ngay waxal ku màgg la da ngay ki ngay waxal ku mag la ndax mooy buur bi nga xam ne moom moo ñu bind ñu ñépp kon fatiha borom subhaanahu wa taala mi ngi ciy wane yërmandeem ni mu yaatoo mi ngi ciy wane yërmandeem ni mu rëyee fatihatul kitab borom subhaanahu wa taala ñu ci jàngal tawxid wane ni moom moom moom yépp wane ni moom moo sàkk wane ni moom mooy buur bi nga xam ne buur la bu yeyoo jaamu moom kese ci fatiha lañuy xamee ne ndeke yàlla rekk rekk rekk lañ war a jaamu yàlla kese lañ war a jaamu waaye yàlla rekk bu ñuy sàkku ndimbal ci moom lañ koy sàkku yàlla rekk bu ñuy sàkku ku ñu xettali ci yàlla lañ koy jëlee waaye ci faatiha lañuy ñuy yëgee ni jullit bi war na di ñaan boromam saa su nekk ndax ñaan mooy ngànnaay bi gën a rëy bi borom bi subhaanahu wa jagleel jaamam yi ndax yonant bi nee na arme bi gën rëy bu jullit bi di am moom mooy ñaan te xam ngeen ne dëkk bi la ëpp doole mooy dëkk bi la ëpp ay arm yu baax yonent bi alayhi salaatu salaam nag nee na te nga xam ne moom lu mu wax dëgg la ndax yàlla nee na du wax bànneexu bakkanam yonent bi nee na ngànnaay bi gën a rëy pour jullit bi mooy ñaan ndax situation yu rëy yépp yu jafe yépp problème yépp ñaan moom moo ci mën a génnee jullit bi waaye fatiha dañ ci jàngee ne ndeke jullit bi war na di ñaan ndax saar bi wax na ko fatiha jullit bi bu koy tari commencement bi dafay yëg ni mu ngi tagg borom bi subhaanahu wa taala mu dem ba ci digg bi mu arrêté tagg yi di ko tawxiidal di wéetal borom bi subhaanahu ginnaaw gi nag ci lay teg ay ñaan yi nga xam ne moom lay tëjee saar wi kon ci gàttal mën nañu wax ne fatiha am na ñetti euh, pàcc yoo xamante ni mën nañ ko ci jànge pàcc bu njëkk bi mooy ndekee dangay ngay tagg borom subhaanahu wa tuddal ko ay turam yu màgg tuddal ko ay turam yu rafet ay melokaanam yu mat tagg ko ci mboolem xeetu anam bu rafet boo paree nga wéetal ko toroxlul ko wàcce sa bopp ci moom suufe suufeelu ci kanamam su ko defee boo ñaanee ñaan bi daal nekk ñaan woo xam ne dara du ko baare ndax borom subhaanahu day xam ne ni nga ko ñaanee anam bu jaadu la ni nga ko ñaanee anam bu baax la moo tax faatihatul kitaab loolu la ëmb mu nekk saar woo xamante ni nee naa la am na solo lool lool saar la woo xamante ni makka la wàcc moo tax ñu tuddee ko makki ya am na ñu ne madina la wàcc waaye ñu néew ñoom ñoo ko wax waaye li boroom xam-xam yi saxal mooy am na ñu ne wàcc na ñaari yoon dafa wàcc makka ginnaaw ji mu wàccaat madina ala kulli xaalin saar la woo xamante ne jullit ñi war nañ taxaw def ci tadabbur mooy settantal ko bu baax a baax a baax ndax li ci nekk ci ay njariñ ndax li ci nekk ci ay yiw ndax li ci nekk ci ay maqaama yoo xam ne maqaama yu kawe la boroom subhaanahu wa taala mu ne baada audu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim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 boo jàngee saar wi nga teg ci amin te amin li muy tekki mooy yàlla yàlla na nga nangu ñaan yi nga xam ne ñaan nañ ko ci saar wi boroom subhaanahu mu ne bismillah ci turu yàlla bi ñuy wax allah lay tàmbalee arrahman moom mi fees dell ak yërmande di yërëm ñépp ñi ko gëm di ko jaamu ak ñi ko weddi arrahim mooy yërëm ñi ko gëm moom képp ci àdduna ak ci àllaaxira alhamdu mboolem cant yi lillaa ñeel na yàlla rabbil aalamiin borom mbindeef yi muy sant bu jóge ci yàlla jëm ci jaamam ak sant bu jóge ci jaam bi dem ci yàlla ak sant bu jóge ci jaam bi dem ci jaam bi ak sant bu jóge ci jaam bi ñëw ci boppam xeeti cant yooyu yépp lillaa ñeel na borom bi subhaanahu wa taala arrahman mooy ki fees dell yërmande moo tax mu tëggee ko wësnu faalaan arrahim mooy ki yërëm ñi ko gëm ci àdduna ak ci àllaaxira kon répété na baat yooyu ñaari yoon ci saar bi moo tax am ñu ne ñu tuddee fatiha sab as sab'ul mathani maliki yawmi diin mooy buur bi nga xam ne mooy buuru bisu penc bu taxawee ne limanil mulkul yow kan moom moom nguur tey ñi jiite woon àdduna bi yépp te amoon doole ñéppay noppi tëj seen gémmiñ kenn du ñemee wax ñu ne borom bi dina ko wax ay ati ati at mbir mi lëndëm ñuul kukk muy taw ci kaw nit ñi ba pare naan limanil mulkul yow kan moo moom nguur tey kenn du ñemee tont loolu mooy maliki mi diin kon yaa ngi tagg borom bi subhaanahu wa yaa ngi koy kañ fii ci saar wi iyaaka yow dong yow kese naabudu lañuy ñuy jaamu ñun ñépp dañuy ànd di la jaamu di la topp waa iyaaka yow kese yow dong nastainu la ñuy sàkku ndimbal sàkkoo ndimbal nag nit ki mën nga sàkku ci moom ndimbal ci lim mën waaye lim mënut kenn du sàkku ndimbal ci moom masalan kaay jàppale ma ma yóbbu lii dafa diis mën nga sàkku ci moom ndimbal googu ndax mën na la cee jàppale dimbale ma ma dugg fii walla dimbali ma ma def nàngam loo xam ne mën na ko loolu ulamaa u tawxiid yi bañuñu ko li ñuy bañ mooy nga koy sàkkoo ndimbal ci li mënut loo xam ne borom bi subhaanahu wa rek moom moo ko mën moo tax jaam bi saa yuy julli warul weddi boppam saa yu waxee iyaaka naabudu yow kese yow dong lañuy ñuy jaam warul xëy di jaamu leneen lu dul yàlla warul xëy di defal lenn ab mbindeef loo xam ne yàlla lañ ko war a defal iyaaka wa iyaaka te yow dong yow kese nastainu la ñuy sàkku ndimbal ginnaaw ba waxee loolu nag yàlla nga ne ko ihdina yàlla nag ñu jubal assiraata yoon wi nga xam ne almustaqim yoon wu jub xocc la kon yoon yi dañoo bari ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bés dajale na saxaabay mu rëdd wenn yoon wu jub mu ne wa anna haada siraati mustaqiman fattabiuhu lii mooy sama yoon wi yoon wu jub bi la topp leen ko mu rëddaat ci wet wi ay yoon yu bari mu ne wala tattiboo la bu leen topp yoon yi nga xam ne ci wet wi lañ nekk ndax yoon wu nekk seytaane moo fa toog di woote seytaane bii mi ngi woote naan ñëw leen man maa yor affaire yi ci man la njub gi nekk seytaane bale di woo fale ne ñëw leen ku bëgg a dem aljanna fii ngay jaar te ñooñ ñépp ay yoon la yoo xam ne yonent bi nee na seytaane moom moo fa toog moo tax li jullit bi war a ñaan mooy siraatal mustaqim yoon wi nga xam ne dafa jub xocc mooy yoon wi nga xam ne boo fa jaaree dangay dem ba yegg ci sa borom doo wàcc mukk ndax yoon wi jub gi mu jub